asalaamaaleykum waa mbokki Tivaouane man la Saliou Leye coordinateur magi Pastef département Tivaouane euh, maa ngi nuyu ñëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Serigne Babacar Sy Mansour ak képp koo xam ne nii kilifa diini nga fii ci Tivaouane ak kilifa aada ak kilifa jàngu bi tey nag ñun waa magi Pastef département Tivaouane dañoo ñëwoon fii ci commune Tivaouane pour def fi benn réunion boo xam ne nii Euh, bi ñu jógee ci élection yi lan ko lan ko jàpp euh, ci réunion boobu nag waxtaanee nañ fi thèmes yu bëri yoo xam ne nii vraiment jëm na ci massification jëm na ci euh, plan d'action jëm na ci perspective jëm na fi aussi ci ay ay ay ay ay développement jëm na aussi ci animation di di mouvement waxtaan bi vraiment ñu depuis 11 h ci suba ba actuellement nii paree gunu nous ñu paree dañuy continuer di rek vraiment encore di bu ñu jógee ci li nga xam ne moom lañ doon def fii ci nous muy réunion bu am solo bi ñu amoon loo xam ne bëggoon nañ ko ci askan wi Sénégal ñi nga xam ne dañoo fal parti au premier tour étant dans l'opposition ñu fal avec 54,24% des voix lo xamné musul am Sénégal bi nga xamee ne nag vraiment loolu amna ah, ñuy wax rek né tay moy deux mois six six jours yi nga xamné né mom la président jomay Jahar fay def ci pouvoir bi ñu gis nak ay acharnement di gis ño xamné ni tàmmunu opposition actionné ay nit ay mal intentionné ñuy dal ci ñi nga xamné né moy ñi yor sunu sunu sunu sunu sunu pouvoir di Bassirou Diomaye jaxaar fay ak Ousmane Sonko sunu président de partie ma leen di fàttali rek ne ñun li nga xam ne ne moom la nekkoon muy opposition nekk dans une situation de survie ñuy tëj suñuy nit suñuy suñuy militant di rey suñuy militant di leen làggeel vraiment ñu nekk ci loolu teewul ñu am suñu fit ak suñu fulla ak suñu fayda ak sunu engagement ba yóbbu parti bi au pouvoir may wax rek ne loolu nga xam ne ne fullaak fayda googu ak kii boobu nu animé woon yaakaar naa ne foofu la gënoon a jafe que fii ñu toll nii donc bu boob léegi nag li ma bëgg xamal waa ñooñu nag nga xam ne ay mal intentionnel lan ma leen di xamal rek ne tey leen gën a déterminé wu pour accompagner le président Bassirou Diomaye jaxaar Faye ak président Ousmane Sonko ñu continuer seen liggéey vraiment ba sénégalais yi kontaan ci ñoom fii ñu ni ñu ñëw débalal leen euh, pouvoir bi ay yoon yoon ba fii ba cent ans ñu ngi ñaan ñu bi ñu ans c'est possible c'est possible parce que vraiment fii nous jógee nga xam ne ne yeneen réew yi nga xam ne ñoo nekk Afrique bi koy am alternance de la souveraineté Nous avons sa bopp ci kilifteef bi nga xam ne sous la tutelle de de de de de de de de l'Occident nga xam ne ne ba depuis njaayam loolu nag bu buñ ko amee te amewuñ ko ci ay armes comme yeneen pays africains yi dañ ciy sant yàlla te xam ne loolu ñaan moo nu ko may ah yàlla moo nu si dimbali ba nu ba nu am ko donc nag loolu damay jàpp rek ne loolu war na noo mën a yóbbu fii ba cent ans ci nekk ci pouvoir bi may dalal xelu sénégalais yëpp di wax ne ñii nga xam ne ne ñoom lañ na nu noppaliku te muñ te jéem a oppo jàng opposition parce que fala budda incha allahu rabbi dinañ an dinañ ànd ak sunu sunu sunu gouvernement ba li nga mom la sénégalais yi di ci ñun ñu defal leen roo seen njort di bonjour tout le monde je m'appelle euh, monsieur Pamdir, secrétaire général Magui pestef département de Tivaouane bon nous nous sommes réunis ici tous les Magui pestef du département depuis les élections nous n'avons pas pu avoir l'occasion de nous réunir et comme vous le savez comme moi, nous avons passé des moments très difficiles, des moments de combat, avec euh, vraiment, ah, nous avons subi tous les problèmes avec le, régime de Maksal qui était sur place. Mais le, bon Dieu nous a aidés et présentement, c'est M. Diomaye Diakhar qui est notre président, et le premier ministre Ousmane Sonko. Cela veut dire que rien ne sera comme avant. Et nous, les magistrats du département de Tuawan, nous sommes déterminés à protéger cette victoire. Être le bouclier de M. Diomaye Diakhar et son premier ministre Ousmane Sonko. Cela veut dire que les détracteurs n'ont qu'à aller se reposer ça ne passera pas du tout. Parce que nous sommes plus que déterminés pour protéger le projet et nos leaders, qui est M. Bessir et Ousmane Sonko et son gouvernement. Et quoi qu'on puisse dire, nous avons tous constaté que les deux mois que nous sommes passés au pouvoir, vraiment, il y a des actions significatives sur l'éducation sur l'agriculture et sur la pêche, sur le transport et tant d'autres. C'est pour dire aux détracteurs qu'ils n'ont qu'à aller dormir. Rien ne se passera pas. Nous serons les boucliers de M. Dioma Faye et de M. Ousmane Song et leur gouvernement. Je ne serai pas trop long sans saluer toutes mes salutations au Khalif général de Tijan et à toute la famille de Sedi El Malik. Et mes chers euh, camarades, Magui Pastef, certes nous avons le pouvoir, mais cela ne signifie pas d'aller dormir sur nos lauriers. Il faut être tout sur le terrain, de veiller et d'alerter pour que qu'on puisse gouverner euh, correctement et légalement sans entrave. Ce ne serait pas bon, trop long, parce qu'il y a d'autres intervenants qui sont sur place, qui vont parler en Wolof ou dans d'autres langues. Mais vraiment, nous disons un grand merci à tous les passent du département de Taoun. Parce qu'au moment des, combats, vraiment, nous avons tout fait pour créer cette résultat là Bon, à travers cela, je remercie notre coordinateur Salou Ley. Vraiment, c'est un grand combattant qui faisait le tour des prisons, qui faisait le tour des maisons des détenus. Vraiment, Salou, nous vous dirons un grand merci. À travers vous, nous dirons un grand merci à tous les magasins de du département Tiawan. Mais nous vous dirons d'être sur vos gardes. Parce qu'il y a des tracteurs partout sur le territoire du Sénégal avec leurs moyens et ils sont prêts pour savoir le gouvernement présent. Et nous ne l'accepterons pas. Nous serons devant eux pour leur dire ça ne passe pas. Bon, je m'arrête là. Je m'excuse encore de, de toutes les provocations que, que je vais subir. Bon, je passe la parole à, à Ablaï Ndiaye, le vice-coordinateur. Assalamu alaikum. Je suis département Tuawan. Euh, je suis Ablaï Ndiaye, mon premier vice-coordinateur bu département Pastef département Tivaouane maa leen nuyu yéen di jël nuyoo bi di ko te ci loxo sëñ Saliou Lay mi nga xam mooy coordonnateur département coordonnateur magi passif département Tivaouane donc di wax rek ñun ci mag ñun mag ñi ah, danoo fekkee tuuti ci démb fekke tey ah yàgg di xeex nag yàgg am taxawaay ci réew mi tax taxawaay ci suñuy gox man Abdoulaye Ndiaye maa ngi dëkk Ngaye Mekhe donc di wax ni dañu yàgg am taxawaay ci suñu dëkk yàgg am taxawaay suñu gox donc di dem di dem ba gis koo xam ni kii jàpp nañu nii moo nu taxaway taxawaay muy le président Ousmane Sonko lu jog and ak mom and ak mom ci xex bi kon di jaajëfal d'abord abord euh, maa ngi Pastef yëpp département Tivaouane ndax ñom dañu jël combat bi def ko sen sen combat donc di ci dox guddi ak bëccëg ragaluñ ci defuñ ci dara comme ni ko waxee léegi ku mel ni Saliou Leye mi yàgg nañu and sax dem di séti les prisonniers donc jappelé len ndax ndax dañuy wax ni Pastef c'est une famille kon xeyna yalla dafa defoon ñom fété fenn fa mais bañ fa nekkee aussi nun japp taxaw nañ len vraiment ci lañu nu man kon dal di wax ni euh, nun mag ñi donc lolu moy suñu taxaway motax nak projet bi nun day suñu projet donc duñu nangu kenn ko xamni ne koy xajamal actuellement donc li wax moy magi ngi département Tivaouane ñu ngi ci ginnaw euh, le premier ministre monsieur Ousmane Sonko nek ci ginnaw le président euh, Diomaye Faye nek ay bouclier nak amul kenn ko xam di nga attaquer attaqué pare ñun ñu taxaw le la lolu mu ta nek ndax mbir bi dañ ko def japp ko muy sunu sunu sunu sunu mbir

vraiment jàppale le projet projet bi tax dañu jàpp ni projet bi sunu projet la te nit ki nag defe naa ni ah, do soobental li nga xam ya ko mom li nga mom mom da nga ci taxaw tem défendre ko kon dal loolu dal je crois que côté boobu laa bëgg waxé rek xamal leen ni ñun wa département de Tivaouane maa ngi Pastef ñoo vraiment taxaw tem rek pour défendre le projet leen jaajëfale ñëpp merci beaucoup. Euh, assalamu alaykum jërëjëf ma sama nuyoo. on a une asalaamu miftaaxul muamala salut c'est la clé des relations sociales bu ñu la nee asalaamaaleykum da nga naan waa aleykum salaam. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñoo ngi di nuyu di leen ziar di ubbee nuyoo bi ci gox bi ñu nekk muy Madinatu Tiwaawan ubbee ko ci xalifa bi Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour xafazahu llahu waraahu yal na ko yàlla dooli jàmm ak wér ak sutura di nuyu magi Pastef yi ne Tiwaawan yëpp ak yi wër Tiwaawan yëpp. di dellu nuyoo bi di ko teg ci loxo coordonnateur Saliou Leye macha allah comme ni ko ñëpp waxee taxawaayam rafet na liggéeyam rafet na Hadj Abdoulaye Ndiaye macha allah Pam Ndiir jër ngeen jëf parce que ñun bu ñu nekkee ci biir yeneen ñi ci biti li liggéey di ñu indi résultat fa tabaarakallah ba lépp rafet ak soxna Diallo mii nga xam ne tabaarakallahu mi ngi fu ñu gëstoo gis ko ci jigéen ñett point yi nga xam ne nag ci subaa léegi ci réunion bi moom lañ fi waxtaane ñett yëpp bu ci nekk. développé nañ ji lu am solo mag ñi gis daan déggante fu ñu toll ci liggéey bi di aw yoon tey la jëm yi doog gisante loolu rek dañ ci wax alhamdulilah rabbil alamin boole koog ne di ndokkeel les patriotes Pastef fii nga xam ni partout dans le Sénégal et diaspora ñoo liggéey liggéey bi bu ñu demee ba gagné fa tabarakallahu à 100 pour cent presque loolu ñoom seen liggéey la kon ñoo ñëpp ñun Pastef Tivaouane ma représenté fi Modab macha allah ñu ngi ànd di félicité ñoo ñëpp di leen gërëm di leen sant euh, kàddu yi nag du bari ñetti kàddu ya ñetti ñetti mbir la bu njëkk bi mooy dem nañu un parti au pouvoir opposition dafa metti xaw nañu doy ci opposition bi daj nañ ci lu ne nelawtuñu woon lekkatuñu woon naanatuñu woon di dund stress stress boobu nag mënuñu ko ni di ko dund feebar ñu song ñuy dee loolu fas yéene wuñ ko lañ doon xeex xeex nañ ko ba yàlla may ñu parti au pouvoir

am ndam ànd ak premier ministre bi nga xam ne président Ousmane Sonko moom la wóolu ñu am ndam am ndam gi nag nañuy fàttaliku ci ginnaaw di xool ci ginnaaw Sénégal du ndakaaru rek Sénégal dafa yaatu ñun demuñu ndakaaru jege ji kenn taxawuñu fenn xëccowuñu ñu dara mais ñu ngi ci département yi nekk ci département yi bëgg ku ñu fàttaliku ci taxawaay bëgg ku ñu fàttaliku ci sagal ñu bëgg ku ñu fàttaliku ñu am opportunité boo xam ne bii danañu am doole ju ñu téye suñu parti ñun loolu la ñu bëgg ku ñu ci jàppale. bi ci des mooy ñi ñu seqal réew mi muy ñi nga xam ne opposition bi fi jógee la buñ leen may buntub ñu yàq suñu liggéey parce que ci lañ taxaw tem ñun buñ doon defar Sénégal mu nekk mu nekk ay tali jamaa yi ñoom gisuñu suñu ngóora gisuñu suñu njàmbaarte comme nag ñoom la ñu nekk daa métti muy opposition. ñun jaar nañ ci nëbbatu ci kaso yi dugg ci kaso yi naan ci lacrymogène yi fu nañu dugg fa est di dund stress ne ci kaso yi di feebar di nekk di dem animation yàlla génn nañ ci nañ sant yàlla loolu bëgg ñu cee continuer waat di ci dund lii mu ñuy bëgg ñu bund mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo des ca kaw muy le président Bachir na fàttaliku àll bi na fàttaliku dëkk yi parce que ña leen jagee rek di leen fàttali seen bopp ñooñu du ñu Sénégal nañu seen xel dem ca la ñu demoon comme nag ñoom dafa am lu ñu muy jub ak jubal ak jubbanti ñun membres yi nga xam ne ñun ma ma membre Pastef yi doon xeex nañ ci jëkkee li ñu ciy jëkkee mooy bu ñu tooñ bu ñu sosal kenn loolu ñu wax diffamation bu mu ñu dal maanaam bu ñu defee parce que ñi nekk ñi ñii ñu jiite ci kaw protégé wuñu kenn de bërki dem la ñu woo fii rakku président Diomaye téye ko ci police bi te bu njëkk à partir bi ko jiitu kenn ñi ma la woo ku ko taq ci moom ci yoon bu ñu la woo sax da ngay da ngay xotti convocation ba ñun nag ñi ñuy jiite ay njiiti dëgg la ñoo xam ne li ñu woote dama bëgg ñu jàppale leen ci mooy ñun bu ñu tooñ kenn bu ñu sosal kenn bu ñu làqu ci ginnaaw pouvoir pour war def yenn yi parce que ñii fi ne du ñu protéger kenn de parce que dafa am lu ñu jàngale ca loolu ci moom la ñu bëgg moom la ñu bëgg a dundee moom la ñu bëgg a doxee bi ci des mooy may ñu benn doomu soxna wala benn doomu daara wala kenn kuy mbubboo wenn sant di dal ci ginnaaw suñu kilifa yi mayu leen ko gis ngeen boo ba léegi depuis 2021 ba léegi président Ousmane Sonko bu ko kenn saaga junnee koy tontu Bachir Diomaye fay mii kazalika nit nag boo amee ñu la tontul doo wax mais nag ñun doom duñu toog di dina raw ñu bàyyi suñu kilifa yooyu ñu leen di manqué di leen doyadal di leen manqué de respect ak leen sosal ak di leen tuuma loolu lànk nañ ko duñ ko nangu ñun nag ñoo ci war a taxaw temm nag ci fulla ak fayda ak taxawaay mm. amu fi wenn sant wala benn nit wala benn doomu daara wala benn mag wala kenn koo xam ne ki da ngay da ngay da ngay doyalal ñooñu ñooñu fi mu nekk nii dafa am leen protégé mooy constitution état da leen a protéger waaye nag comme léegi jamono ji jamono yi wax la ña fa nekkoon di wax dañoo daje ñu leen dàq a wax ña fi nekkoon di def lu noonu lu ci nekk lu ñu doon jaayee dañoo daje ñu leen ko ëpp doole booba la da fekk yàlla ànd ak ñun inna allaha maana yàlla na ku ma àndal loo loo loo laaj da nga jot. yàlla moo ànd ak ñun projet bii du kenn ku dul suñu boro yàlla wane na ci boppam ba mu jeex yàlla wane na ci boppam ba mu jeex kon boo kom yàlla wane na ci boppam nag ñun ñoo war a yeew te xam ni la mu ne ci alquran qul illahuma malikal mulki tuutil mulka man tasha wa tanzi'u mulka man tasha wa tu'izzu man tasha bi dakar xëy ba laaya ja jeex moom yàlla gëm na boppam ca la mu woote mi ca la mu wax ci boppam wane na ko tey ci àdduna ñun nag foofu la toll nañu góorgóorlu liggéey am résultat bi nag kenn gisul jooni jooni moom amul fenn falu tey defar tey réew mi mënu amul fenn parce que defar dafa metti ñun ñooy tëdd ñu sénégalais yi ñu tëdd nelaw waaye ñi ci kaw tey ñi ñu nommé kenn nelawatu ci la ko dege ci Bachir Diomaye ba ci Ousmane Sonko ba ci ñu nommé ñu ñi ñu mujjee jox ay poste ci conseil des ministres yi passé kenn nelawatu ci parce que ku ci ne wax nañ loo xam ne say naraw jeex na ñun tam noonu la suñuy naraw di jeexee bala ñoo bala ñoo am jàmm mooy réew mi tegu ci yoon saxaar gi saxaar gi nag départ na tegu na ci raay bu baax yàlla yegg ak jàmm famille yegg nag yàlla nañ ko fekke buñ ko fekkewul suñu njaboot yi ñëw yi ñëw ëllëg yàlla nañ ko fekke waaye daal ñun moyetuñu kenn ku dal ci ginnaaw état bi di wax lu dul noonu wala di leen ko def waaye nag ñëpp moytu parce que ñu ñu seqal du ñoom ñooy téléphoné kenn naa ko sama waay laak sama protégé bu kenn tëj wala bu kenn laal ñi ñu seqal xam ñu caaxaan yooyu de bay boo nañ jub te jubal te jubanti képp koo xam ne kii teg membre Pastef nga wax ko sa njaboot ba ñu xam ne ñun ci yaa ci yoon woowu la ñu taxaw fi may jeexale nag mooy wax ko parce que ci plan bi la Nous sommes opposition nous sommes en ba opposition du waxi du waxi permanence les patriotes ñoko ont ñoo fay ci xel depuis de bëtti ba légui ci kër yi lañu nek di di tok ci kër yi di waxtaan di ko def ko def ko permanence kër lañu nekkon ca tey jii boroom kër gi soxla na këram léeg-léeg mu soxla boppam ku ne da ngay soxla sa bopp nañu am lieu boo xam ne bii kus bu ñu soxlaatee fa la ñuy dem daje bu ñu mën a guur a tabax ñi nga xam ne nekk na fi ca wóoru seen bopp am am as ñoom ñuy fay location boobu waaye di dem di daj ci kër jàmbur man loolu àndatuma ci nañu fexe place boo xam ne bi permanence boo xam ne bii dañ koy dañ koy engagé moo xam parti Pastef ñoo koy engagé moo xam ñi ci nekk te man koy engagé ñoo koy engagé mais pare nañu war nañoo pare fi ni ci daje ci kër jàmbur yi naan fa ñu def suñu quartier général mbedd mi nak kenn momuko heure buñu pasté fi ñepp war dajé quartier général mën nañu dajé fi ci mbedd mi gisé waxtaan kafré waaye nañu bayyi kër yi nak ci dem suñu permanence ñen baal ñu wax assalamu asalaamaaleykum salaamaaleykum Diallo Ndiaye ñu gën ma xam ci madame Aris vice co vice coordinatrice magi Pastef département de tiwawon ganna bi ma nuyo khalif général des Tidiane seigne Babacar si ma ngi nuyu waa Tivaouane yépp di nuyu ñëpp ñu toog fii ci jotaay bi di wax nag tey dañ fi daje woon pour waxtaan xool nu ñuy doxalee pour euh, développement ak euh, perspective massification parce que jëluñu réew mi rek ni dañuy toog xaar ñi ci kaw déedéet Pastef dani jële ci suuf jëm ci kaw moo tax ñun dañuy liggéey ci suuf jottali ci waa kaw xool nu ñu bëgg a defaree suñu département bi ak nu ñu ko bëgg a liggéeyee di wax nak ñi nga xamante ñi ngi dem ci presse bi yor seen milliard milliard yo xamne dañ ko loubal bëgg fuñ ko réssalé di fay presse bi di dénigré di wax wax ju ñaaw yëngaluñ ñu parce que dañoo jàkkaarloo ak ñom ay at su seen pexe jugoom ñun duñu tok fi tay ba yor pouvoir gannaaw bobu mo gëna metti metti wuñu dawuñu jàkkaarloo ak ñom ñom ñu yoron état yor seen armée yor seen lépp lañu jàkkaarloo ak ñom ba jël réew mi kon nañu noppalu xam ne mënuñu ñoo wax ba déstabiliser ñii nga xamante ni liggéey moo leen tax a jóg jóg defar réew mi jub jubal jubbanti ci la ñu nekk te dinañ ci dem ba jeex développement Sénégal ak li ñu diggoon sénégalais yi ba tax ñu wóoluñu jox ñu réew mi ñu ngi ci ba tey ci la ñu nekk duñ leen tontu nag ñoom nañu dese wax ñun ñuy jëf te li ñuy jëf mi ngi feeñ campagne agricole bii bi ñu ñëwee ci réew meeg léegi matul ñaari weer te campagne agricole bi gis nañu liñ ci def ba bay képp kuy baykat tey kontaan nga wàññi engrais joxe jiw bu baax ci prix boo xam ne ñoom yaa xalaatuñ ko woon ci koo xamante ni deux mois nga jël réew mi nawet njot nga ni naa def géej gi jën kenn gisati ko woon kenn gisatu ko woon Sénégal dañ doon dem bay saam ñetti yaboy 2000 tey ñiy dem géej ak ñun ñi dem dem dem ci marché yi xam nañu changement am na te day gën a neex day gën a jëm kanam mënoo nag jàpp réew fukki at ak ñaar nga yàqaate ko lépp lu am ci réew mi ña war a fay ña war a fay impôt nga may nga may leen ko ndax milliards yañ lay neexal la doomi réew ma war a dunde nga jël ko bañ nga ko ba doo ko denc ci banque sax yaa ngi koy denc sa kër ndax sàcc ga nga sàcc la ñu sàcc daa baree baree bari ba ñemewuñ koo denc ci banque léegi nag nit ki yor réew mi ñaari weer nga ni na baax munoo yàq réew ay at fukki at ak ñaar te damaa wax sax fukki at ak ñaar ndax am na lu ko jiitu am na ñoo xam ne ñu ngi woon ci régime bee te ci régime ba ca jiitu ña nga ca woon doone milliardaire lu réew mi war a dundee wala lu war a dem ci réew mi ñoom ñu jël ko lekk ko ba pare tey ñu ñuy bëgg a rey naan wàññi wàññi wàññi mënuñu ñoo déstabiliser nañu noppalu nañu noppalu te la président waxoon rek laay laay répété képp ku lekk di nga gokki gokki googu nag ñu war a gokki moo tax ñuy njëkkantee dem ci presse bi defe ne buñ nee xub ñun ñu dellu gannaaw la ma waxoon rek gën naa metti ñu jàkkaarloog ñoom. Hmm. kon tey la gën a neex ci ñun ñu mën a jàkkaarlook ñoom bu baax te xam ne la ñu bëgg ñun ci réew mi dinañ ci àgg président Bassirou Diomaye Faye caaxaanul Ousmane Sonko waxi nopp la ñu dëgmal dig ko sénégalais yi wax ko sénégalais ba sénégalais yi gis ci seen bopp bañ leen voté cinquante 54 virgule pour cent xam nga ni duñ duñ leen wor te duñu duñ duñu seen espoir boobu ñu am ci ñun. ci Sénégal yi ci président ba fal ko wallaahi dinañ ci gis lu weesu suñu njot incha allah nañu noppalu noppalu leen te xam ni réew mi dañ koy defar te réew mi day jub day dañ koy jubbanti dañ koy teg ci yoon ñun ñii ci sonn <coughs> nekkoon ci di dem ci kaso yi di dem ci prisonniers yi ñu ñuy menacé di ñu tëkku dinañ leen tëj dinañ leen rey xaaruñu ci dara ñu fi toog ñi ñëpp kenn xaaru ci poste kenn xaaru ci dara lu dul réew mi baax moo ñu tax a jóg hmm. te incha allah dafay baax wasalaam